yaa ngi ci jàmm sa alhamdulilah jaawale ki fi ñëwoon benn bis doon wax naan daa bëgg a dugal doom ci daara 1915 la ñëw fële Madina Makkatal Mukarrama mi ngi fi ñëw 1918 18 ak 2021 ak 2019 waaw ak la nga xam jël na bi nag fële la ko defee ci kanam ci kanamu baraag ba fee mooy mooy mooy photo bi fa la fa la ko defee ndax maanaam sëñ Moustapha Seck mel na mu sëñ am di xati nee na maanaam sëñ Abdou Chakour moo ne ko na ci photo bi photo bi sama bàyyi njaareem ko defee mooy kanam bu fat moo nekk fële lii mooy ginnaaw baraag mooy kanam ginnaaw baraag pare bu nekk incha allah dénk yi fi la ko ko fa si ñëw ñëw fi maanaam lii moom mooy këll bi mu daan yor ci loxoom moom maam Cheikh Ibrahima Fall moom la sëñ Cheikh Ndigal di wax naan képp kuy jaay ngóoro nga ñëw ñu delloo loolu loolu la wax maanaam lii gaal gi moo def der yi nga xam ne waa kër suñ tubaay bi Moussa ñëw jamono maanaam gàtt yi ñu daan maam Cheikh daf daan bind seen tur di ko denc sëñ Modou Moussa Mbacke sëñ Fall ak sëñ Bachir ndax nee na benn der bu ci ne mën naa wutu xut bu saman hmm. léegi nag biñ ko waxee suñ Moussa naal barki dem fi dani moom loolu sikko moom bu yóbbaale di sakko su moom Cheikh Ibra Fall mën na nekk lii mbindum sëñ Tuubaa ne lépp loo xam mas nañu ko toggal moom Cheikh Ibra Fall am nañ ci biir support ko daan defal moom jigéen da mosu ko toggal ci dund mosu ko foto daa Cheikh ko daan toggal téléphone bi sëñ Fall

suma sana saana taxaw fenn ba doon mam Cheikh dañ ci bu tanki di ko denc yi yeb ay bagage mam Cheikh la lii mo moo def jàllaay bi ak verre ak cuuru tare yi mo mo nek fi de ay basang yi maam Cheikh la yi def ay bagage am la sëñ Cheikh digal nag nee mam Cheikh bu ma la jóge fe ba dugg ci barak bi neena su gisee mbóot yi daw ci ko bagage day fexé ba njëkkante bu ci tëj neena su ko fexé ba tëj ko neena day fexé ba japp mbóot yeb def ko ci benn pot da koy xol nan ndax neena day bañ yóbbaat képp seigne touba bi mom da lan faral def lepp lo xam rek seigne touba laal nako wala ki nako mo jël dugal ko ci barak ñëw ci kaw loolu la ko war li moom mooy loolu la ko war nee naa ordre mérite moom la TFM ma ne woon daaw si émission Baye Ndiago Diop bi mu ñëwee fii la ko jëlee euh, kii boobu euh, kii boobu léegi nag yi original yi yëpp dañ bi journaliste yi ñëw fa li moom mooy bopp gis bi ngay dégg bopp gis bi ngay dégg di ko wax moom la maam Cheikh dayoon daal xeej bi daan yor sëñ Fall mu si am sa ko nag nee na moom bayam seigne abdou sakor waxon nako am na sama baye ben xel mu nango ci ben bu di ay bagage njëgë ñaay maam cheikh li yëpp ay bagage seigne touba la def ben serigne boko tak maam cheikh boko tak maam cheikh Mau mom moy moy malaka ni moy mau ni nga xamne seigne touba borom may na yëre maam Cheikh Ibrahima Fall bee mu foto hmm. ak kaala gi moo nekk nii moom nga gis muy kii nii ci mbir yi dàll yi moo nekk ci suuf noonu léegi fii nag sëñ Tuubaa dafay mos a julli benn yoon laata ma ñibbi àjjana maam Cheikh Ibrahima Fall tamit fi la daan nekk di wéetal suñu borom même sëñ Moxtala Mbàkke Moussa na ñëw ak kilifa yi même sëñ Moussa Nayel mu fi mujjee ñëw fi la ñëwoon di ko jënd bi fi ñëwé ba ñaan ba ba dem bay dugg biir Dakar bay dugg buntu Dakar lañ ko woon ko la nga doon ñaan am cey est-ce que. momi it moom it jëmi bopam bi défé fi ndax li directeur sàmm de commerce bee ko defar. Mhm. nee nañ bi mom bi taxé ba dopp bi ñu taxaw du ko xol mu naan ma li de def na ju lu man tollu ci 1 million. ki ko doon defaral doon ko wax naan ko loolu de du xaalis ci Cheikh Ibrahima loolu du dara ñi waxtaan ñi di ngay reetaan après saa yi alaaj ne ko ñun de dañoo wara peinture ak zinc yi mooy zinc yi fi maam Cheikh bay woon. ndax peinture boko peinture dana rafet dana and ak ni ma dem jóge fii dem tëdd ba guddi kooku noonu kaw moom lay wax ni woo ma téléphone ni ma am na lien bu ma la envoyé boo demee nga xool ko sa téléphone ma xool ko muy tiwil na a def diis de mu ni ma yaa ngi fàttaliku bis bu ma fa ñëwee mu ne ma ne ko waaw mu ne ma bis boobu la ma doon ñaan ci kër ga bu soxaloon ma lool sama yitte jamono ba may dem bay dugg biir Dakar lañ ma ma jàppan ni tey miira samp bi ngir jëm Cheikh Rafa moom moo tiwil yi fi ba mu koy jënd sax moom moom bëggul woon a jënd yi ndax la bëggoon mooy yi nga xam ne yooyu nooyoon waaw ndax yi fi doon dox dox Sénégal sax ba gis ko muy indi lii waaw indi waaw nee muy dox di dox di dox di ba ba ba ba ba noppi sëñ bi daal di toll ko Dakar moom liggéey moom day ñëw rek fekk ñu koy defal ci gën sëñ Cheikh te barki dem bi mu fi jógee mi ngi mi ngi wax yëngu ci yàlla naan lii de dama bett dëgg la ndax xamuloo ni liggéey bi li kër gi dina mel nii. ndax rafetaay ak tamit même sëñ Moussa ma demee di ko yóbbul photo photo yërëm maam Cheikh bi gisee barab bi moom ndeysaan daa jël téléphone bi di ko ci commencé y tóori xewal nga ñooñu xam nañ koy Cheikh Ibrahima ak doole maam Serafa bër ci démb fii am na ko fi taxaw yor cancer boo xam ne dañ koo jox Moussa fekku la ci ñuy liggéey fii am na waaju fi ñëwoon yorub cancer dañ ñu ko weer weer ko may mu dee mu faatu weer rek lañ ko wax weer bii te weer ñetti weer dox na ci diggante bi ma ne ko bërëngul fii suuf mu bërëngul ma ne ko bu demal boo wóotewu rek ñu xam ne yow deewugu ba léegi woowuñu kër la goo xam ne fi mu doon ni moom gisuma lu mënta saafara ci kër Adama moo tax nag waa Baye Fall bu ñu xamoon luñu am danañ gën a góorgóorlu dinañ ko fonk dinañ ko téye moo tax nag fii ngeen yàlla dimbaleen ba ngeen teg ci seen tànk na ngeen ko sante suñu su ngeen noppee ngeen jaar nii ci côté am na benn salaatu ala nabi bu fa ne suñ tubaa bind na ko aldul si min la ko bind nee na képp koo xam ne teg nga ko bët jàpp ne yàlla suñu borom bëgg na la bopp ca yàlla moo nekk fii moo tax barab barab yëngal bismillah fii la si kenn dañ wàcc léegi fii la moom seen aar ni muy àjjana nag waaw ah, fii waaye demi néeg bi nag dañ koo gas bu mu wóor néegu ñàkk dugal ko ci suuf si même jamono suñu doole yi ñeewee ko moom fii la doon moom la sëñ Moussa Ndao di wax tamit maam Cheikh bi muy gën a at mi ngi jël ko boobu teg ko fii dëgg la koo suñu Bachir la ko teg fii néew wallaay ndax maam Cheikh dañoo wax ni fan mi mujj yi gën a àdduna am na xisab bu boo xam ne tamit daanaka ñu koy dégg bari na waaye nag sëñ Moussa mi nee na moom maam Cheikh boobu bis boobu mu ngi jël ko teg ko ci boobu fii si néeg même njabootu suñu tubaab yi dañu koy ñëwee ko fi la leen toog leen dugal leen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 لا إله إلا الله فلنقى لا إله إلا الله فلا إله إلا الله فلا إله إلا الله لا إله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 may nu mbaax la ilaha illallah